dara euh, ñoom nag ñu ngi doon amalee match ba ca stade Abdoulaye Wade bu Diamniadio bi nag di fukki yoon ak ñeent Sénégal di lajj ci kanamu Algérie te juróom-benn yépp dafa toftaloo. ministre bi ñu dénk wàllu intérieur di Antoine Diome moom nag dem na démb ca ya ànd ak euh, collègue am bi ñu dénk wàllu mine ak géologie di Omar Sarr. ñoom nag ñu fa doon amal benn CRD spécial jagleel ko nag euh, manifestation yi nga xamante ne moo amoon ca Xosanto nekk ca euh, Saraya ba ñaari doomu aadama daal di see faatu ak ñu bëri ñu amee ay euh, gaañ-gaañ CRD boobu nag liñ fa jëlee mooy rek daal di dakkalandi arrêté bi nga xamante ni moom la préfet bu dëkk ba daal di yëkkati woon jëm nag ci ni ñuy mais main d'œuvre locale bi nga xamante ne dañu jàpp ne amuñu xarañteef ngir amal liggéey yooyu waaye nag euh, askan wi nekk ca Saraya euh, yemuñu rek ci ñu ñu ajandi arrêté bi ñoom li ñu bëgg daal mooy euh, gouverneur bi ñu jëlee ko ci dëkk boobu hmm. ki nga xamante ne mooy Abdoulaye Daouda Diallo tey jii nii daal bu soppeeku amul war na joxe démission wam ca conseil économique social et environnemental moom Abdoulaye euh, Daouda Diallo nag euh, ñuy xamle ne àndul daal ci tabb gi ñu tabb Amadou Ba ngir mu jiite li nga xamante ne mooy coalition Benno Bokk Yaakaar ci euh, élection yi ñu dëgmal bu ñu sukkandikoo ci journal L'As nag bi nga xamante ne moo joxe information bi moom Abdoulaye Daouda Diallo sax barki démb démb njiitu réew mi woolu na ko ngir rek daal di ko tabb ci euh, poste premier ministre bi waaye nag dafa bañ boobu boobu proposition nga xamante ne moom la ko njiitu réew mi defal donc lii la mën a jàpp ci brève bi xam naa nag balaa ñuy soobu ci détails yi actualité bi ñu taxaw gum foofu ci ak kaw Abdoulaye Daouda Diallo ndax nag dafa mel actualité politique bi mu ngi bëgg commencer neex mhm. gis nga politique benn côté il faut muy riche il faut que chaque jour que je fais muy am lu bees. Mhm. par exemple évolution Benno Bokk Yaakaar ci crise bi ñu nekk nii chaque jour boo xëyee mu ngi am lu bees loo xamante ni mu ngi tege sur table. Mhm. lii confirmer ne yaa a crise lii confirmer ne y' a aussi dissolution bu euh, d'une autre forme de de de de la coalition euh, Benno Bokk Yaakaar dissolution j'ai yi parce que. parti la boo xamante ne nii ñoom seen jëm bopp ñoom ñoo koy tasal seen bopp. Mhm. parce moo ko tas. état moo ko tas. bii pa coalition bii nga xam ne jàppee na ne moom coalition présidentielle la ñoom ñoo ngi tas tasante ci seen biir. Mhm. bu doon sëy la ñu ne fi mu toll nii am na ñoo xam ne commencé nañoo gedd di dem ci seen i kër. Mhm. di lu ñu ooyee lu ñu bëri fay nañ ñu bëri fay nañu te fay bu ëpp nag bu yàggee tas lay jur. Mhm. actuellement après les cas xam naa ne dinañ ci ñëw ci yaatal ci. waaw parce que jagleel nañ ko ponk. exactement mhm. mais il faut euh, xam nga ci ponk yi dafa mel ne kaaw Abdoulaye Daouda Diallo mi bokku ci. Mhm. donte mën na dugg nag ci benn fenêtre ci euh, sujet yi. Mhm. mais Abdoulaye Daouda Diallo dafa am ñaari mbir yoo xam ne mënuñoo ñàkk bañ a wax ci moom. premièrement mooy dafa bokkoon ci candidat yi. moom prétendant candidat de benn bokk yaakaar yi yi jàpp ne président Macky a tànn. Abdoulaye Daouda wane na bëgg-bëggam waxu ko defu ko maanaam deful ay conférence publique pour euh, dénigrer qui que ce soit wala boog di wax ci wàllu euh, candidature am wala di wax ci posture président Macky Sall bi ñu demee xëy na kay ba déclaration bi leer président Macky Sall la tànn Amadou Ba ci la moom daa di euh, reculer. recul boobu moo waral président Macky Sall convoqué ko mu bokk ci ñi nga xamante ne nii amoon naa ak ñoom tête tet pour waxtaan ci lu jëm ci ëllëgu Euh, benn bokk yaakaar ak choix wu candidat wu Amadou Ba waxtaan wala fa tukkee wax nga ko tout mooy proposition boo xam ne Macky Sall la defal na ko Abdoulaye Daouda Diallo mu nekk une première fois ci façon boobu mu proposé ko euh, benn leader ci biir benn bokk yaakaar c'est la première fois ci format boobu mu proposé ko nit c'est-à-dire waxuma la sax mu tapp la ngay jëwriñ ngay ilimaanu jëwriñ yi maanaam premier ministre ci gouvernement bu yees bi ñuy wax waaj a xaar te gouvernement boobu nag entre parenthèse mën na bañ a taxaw mën na bañ a taxaw remaniement bi ñuy wax ni naan ci lañ toll ak nangam mën na bañ a am. non remaniement faw mu am. parce que euh, premier ministre. waaw dafa war a dem campagne. donc dañ koy démettre de ses fonctions. te saa bu premier ministre demee gouvernement. day tas d' mm-hmm. point boobu nañ ko bàyyi ci développement euh, actualité bi. Mm-hmm. après ñu ñu waar si ma wax ci lan laa ci xalaat. Mm-hmm. ci la moo tax ma ne mën nañu bañ a euh, dissoudre le gouvernement ba noppi. Amadou Ba porter à la fois ces chapeaux là di nekk sur le terrain te teew du ko yàqal dara du yàqal dara tam Macky Sall parce que format bi commencé feeñ ñi nga xam ne proposition du poste premier ministre ki ko njëkk def daf ko rejeté muy Abdoulaye Daouda Diallo mii lii wane ne dafa rejeté encore une fois beneen signe bi wane ne dafa rejeté poste premier ministre bi mooy le fait muy déposer sa démission au niveau du mm-hmm. conseil économique social et environnemental. Mm-hmm. démissionné. yaakaaru toon ne dina démissionné donc lii c'est une surprise boo xamante ne nii ñëw na encore dolleekuwaat ci position wu Abdoulaye Daouda Diallo te déjà bu bu démissionné rek li muy wane mooy dafay postulé wu comme ni ko Mame Boye a defee. comme ni ko ñeneen ak ñeneen defee. te su boobaa aussi dafay gën a dëggal ne yaa crise au niveau de Benno Bokk Yaakaar. Mhm. crise boo xam ne opposition war nañ ci profito mais aussi euh, mën na indi yeneen ci euh, calendrier électoral bi ñu jëm nga xam ne euh, candidat yi. vraiment mën nañ ci gis ay potentiel ñu ñu yaakaar yaakaarutoon sax mën nañ ñëw soobu ci langue gi mm-hmm. donc kaawu daaw da Diallo actuellement dafa gën a sérieux mm-hmm. après euh, waxtaan bi nga xam ne séq na ko ak président Macky Sall acte bi ci toppaat mooy sa démission bi nga xam ne war na ko déposer tey ci conseil économique social et environnemental mu nekk poste boo xam ne ñu bëri dañu naan euh, benn kuréel la goo xam ne c'est ñu ciy tabb en général dañ ciy régler ay affaires politiques. boo mhm. xoolee ñu ngi ci tabb. clientèle politique clientèle politique bi ñoo ci gën a bénéficier wu. donc Abdoulaye Daouda Diallo bañ ko ko joxee ba euh, tey jii nii euh, mu fas yéene moom démissionné c'est-à-dire que. moom changé wuñ ko dafa démissionné foo déggee démission rek c'est parce que am na lu la neexul donc bu démissionné ba pare rejeté poste premier ministre muy am na ñaari instance yu gën a am solo ci gouvernement bu président Macky Sall daf ko rejeté soxlawu ko. Mhm. kon am na lu muy séntu lu gën a kawe. kon li ñu mën a conclure foofu mooy day nekk candidat même bu ko waxagul dafay nekk candidat déclarer euh, sa candidature d'ici quelques jours. Mhm. ñeel élection présidentielle yi yoo xam ne ñu ngi ci biir bokk ci APR te génnewuñ leen ci APR ñu bokk ci APR bokk bennoo yaa bokk yaakaar mais ànduñu ak le choix de bennoo ñoom ñu jël seen làng bopp muy trois candidats. Mm-hmm. yoo xamante ne nii mën nañu wax ne ba tey ay candidats wu bennoo lañ muy Mame euh, Boye Diao euh, mm-hmm. Amadou Ba ak euh, ki xam ne mooy doo Daouda Diallo. mais bu ñu demee balancer seen parti politique est-ce que loolu du leen génnee ci biir APR. loolu. sax dama ci bëggoon a ñëw bu ñëwee ci kaaw maam. parce que APR du coalition parti la. parti politique la. Mhm. parce que parti xam nga loolu li ko li ko indi. mooy ñàkk a def euh, li président Macky Sall proposé woon mooy euh, primaire. Mhm. parce que primaire dafa am ay procédure primaire dafa que d' abord parti yi nga xamante ni ñoo composé la mhm. parce que bu fekkoon primaire u parti politique la amul problème. mais bu dee primaire euh, coalition dafa laaj temps. Mhm. déjà parti bu nekk war nga mën a proposer sa candidat bu fekkee ci APR am na onze candidats APR kese kese am na onze candidats. Mhm. dañuy def ay primaires ñu xool kan lañ ci kan moo ci ëpp pouvoir pour ñu jiital ko mu au nom de de de APR. Mhm. ñi yeneen yeneen parti aussi def ko comme PS comme AFP et les autres partis. bu ko defee ñooñu loolu nag ñooy nekk euh, candidat yi nga xamante ni ñooy compétir ci euh, primaire bi. Mm-hmm. ku ci gagné parti bi ci gagné moom la ñuy jiital ci turu euh, ci turu comment dire coalition benn bokk yaakaar mais loolu liñ ci jàngatoon lu gàtt mooy dafay indi féewaloo ci coalition bi mbëkkante mm-hmm. commencé am te dafay jaxasoo moo tax ñu rejeté woon ko donc ce qui veut dire que primaire boobu bu amoon benn côté dina arrangé APR. Mm-hmm. parce que su boobaa féewuloo gi mën na ñàkk te su boobaa da ngay da ngay tënku ci biir. charte bi nga xamante ne nii euh, moom la partie bi euh, taxawal. beneen affaire bi tamit. bi mhm. indiwaat tamit problème bii. Mhm. mooy charte bi président Macky Sall proposé woon pour ñëpp tënku ci. Mhm. candidat yi rejeté ko. donc rejeté nañ primaire rejeté charte boobu nga xam ne moo leen mënoon a jubóole. looloo indi féewuloo gi nga xam ne tey jii nii soit xanaa Mimi Touré moo ci weex donc dañ ko génnee complètement ci euh, ci ci ci yëf yi mais tey on pouvait attendre. Euh, à ce que ñu génnee am ay sanctions yu dal ñi nga xam ne c'est des militants de parti et de coalition. bien sûr comme ni ñu ko defee ci kaw mi mi. voilà comme ni ñu ko mhm. defee ci ñeneen ñi donc que ça soit euh, kii nu mu tudd sax Abdoulaye Daouda Diallo euh, ak Mame Boye Diao normalement. ak Aly Ngouille euh, Ndiaye Aly Ngouille Ndiaye mhm. dañ leen war a génnee ci APR bu fekkee ne topp nañu les normes te xamaguñu nag dans l'avenir fan la jëm parce que bu dee kaaw Mame Boye Diao on peut attendre à ce ñu génnee ko ci parti bi. bien sûr li xew démb dinañ ci ñëw léegi moo nar a nekk ponk sax.